jongante alxuraanul karim bi ñu doon amal ci àddina bi yëpp dañ ko doon amalee ci réewum Dubaay sénégalais bi nga xam ne moom moo jël deuxième di El Hadji Cheikh dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba ak yeneen ñi nga xam ne ñoo jël raw gàddu gi ci concours national bi nga xam ne ko moom la doon amal mu jëm ci jongante alxuraanul karim te Moustapha Touré jiitu ci topp ci Ibrahima Khalil Lo ak Moustapha Dieng ak Serigne Modou Mbacke ñoom ñëpp dëkk ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Touba jàngee fi alxuraanul karim ñoom ñëpp ànd ak seeni encadreur seeni waajur ñu gàttandu leen fii ci Touba Mbacke Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides dalal leen waaye am mbégte lool ci performance yi nga xam ne réewum Sénégal def na ko ci jongante alxuraanul karim ci àddina bi waaye ci taxawaayu daara yi nga xam ne ñoo nekkee fii ci Touba Mbacke ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ba jongante yi nga xam ne am na ci biir réew mi dëkk bu sell bi di Touba ràññeeku bu baax a baax Serigne Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou dalal leen fii ci résidence Khadim Rasoul ci altine ji dëppoog lool ñu amal fi jotaay bu yaatu boo xam ne yëkkati nañ fa alxuraanul karim amal fay taalif waaye am kàddu yi am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko fi. bismillaahi rahmaani rahim ma jóg bérél cant gu siiw ndam yi nu xam du ndam lu néew nan àndandoog sun mag réew sargal si doomi daara yi jam nañu njog la ñëpp diir am nañu way wu dootu réer alhamdulilahi alqadir ndam ñëw na doomi daara yi yàlla nu sédde alxuraan nun lañu may naasi balaan nan maase kañ xalel yi daan daanaa ni doomi daara yi jël nañu ndam la wan Dubaay ak Abidjan Ndakaaru Njaay na ñëpp jóg nu maase waay sargal jaloore daara yi te alxuraan ji ndamam deful lu tuuti ci ñoñam ñëpp ko diir te noo ko jam jaaraama doomi daara yi daara sigil na Sénégal tey jii ci bépp capital waaye réew mi war nañoo fulaal ngir yàlla doomi daara yi jaloore am na ñuy ñaloor jaloore yéen am jaloor wallaahi yéen a sell mboor jaloore yaa ngi ci daara yi ku leen di suuru daa wérul ku leen di dëkk daa wérul àddina yàgg naa cëral kàngam yi jiite daara yi sunuy xale lay dem biti réew sunuy xale yi dem biti réew lëmbe ko toj fa seeni géew jël ndam la indi dal di siiw kenn mën la mabbu daara yi sunuy xale yi dem biti réew lëmbe ko toj fa dal géew jël ndam ya indi daal di siiw kenn mën la màbbu daara yi alaaji seex ja toj dubaay mokkal ga yéem na yooyu gaay gone gu ndaw ci biiri baay jël ndam andil ko daara yi seex fallu ñas albaraka ndam lañ tegoon ci afrika yaa ko ne cas du kii du kaa andil ko réew meeg daara yi waa C3S loola ndam seex fallu sànqe moo ko jam mbindam ma yéem na ay kemam taaral na daayi daara yi waa sene kooña bantare wërngal ba Moustapha Touré moo gàddu ndam la maa ngi kuy jiima noonu daara yi kon ndam yi teew ak ndam ya wéy yeyoo nañoo kañ ak way te sant ñiy jël seeni may di xëpp doomi daara yi la footballeur yi doon yeyoo la dongo daara yi yeyoo mbaa lu ko moy danañ la yoo ndam-ndam la doomi daara yi ab kub gënul kaamil fi nun jogante ji jogante nañ te jiitu nan na ngeen defaat na ngeen defoon état na geesu daara yi terrain yu yaay yi jombu leen millions yu rong yi jombu pale ba laane jombu dalal fa doomi daara yi raaya ngëñal yi ñoo ko jël jaaraama nee leen njoo ko njal bur yàlla moo fasoo añal jàmbaar doomi daara yi yéen jiitu ngeen Malek Niger Dubaay di damoo ba keer yéen a ngi ca njoboxtal ya goor réew yëpp a ñeesun daara yi seen yi tax na xol yi neex tey daara bég na ñëpp feex may ngeen nu mbég mu déeti jeex mbég maa ngi doomi daara yi Cheikh Muntaxa yow ndokk yow ndam yëpp xëy na jëm fi yow yàlla na sa fan wi lawalaw yaay wéeruwaayu daar yi waxaat ko Cheikh Muntaxa yow ndokk yow ndam yëpp xëy na ñëw fi yow yàlla na sa fan wi lawalaw yaay wéeruwaayu daar yi ban la amee ba fii tol ndam lun fi yootu dal ko jël sa fan wi yàlla na nañ ko ful ngay jiite dame daara yi faral taxaw Ahmadou Baas te sëlmalaat ci xayru naas te sant Cheikh Bamba mi sam xel ci sargal daara yi allahumma salli ala sallim allah kay ci daara yi waaw ñëpp rëy na lool rëy na lool. mu jàng waaw waaw waaw. li mu laaj rëy na lool. kon laaj war nañu koo xam ne ba ñëpp dégg dégg ko. waaw ñu ngi nii waaw waaye yoon bi ñëpp xam ko. alhamdulilah. daa wax ne rek. waaw li mu demee nii. waaw li nga wax ak lépp. waaw day lu ñu war a ñëpp war a xam. Mm-hmm. dëgg la laaj na émission laaj na tel laaj na lépp. Mm-hmm. bañ xamee ko nii. Mm-hmm. bañ xamee ko ba mu leer ñëpp. incha allah ñaari aay rek sëñ bi. waaw incha allah leer boobaa day soññ ñëpp. day soññ ñëpp waaw day soññ ñëpp. incha allah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 فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون fasabbih bihamdi rabbika wa kun mina saajidiin wa'bud rabbaka hattaa yaatiyaka al-yaqiin sadaqallaahu al-aziim. alhamdulilah. dégg ngeen ko mu ne sëriñ bi bég na. alhamdulilah. Ah, fi sëriñ bi tegoon alxuraan kenn teg ko fi. alhamdulilah moo tax lii lépp ndawam moo tax lii lépp ndawam ma te it incha allah ndam yi kanam rek la jëm incha allah ndam yi kanam rek la jëm alxuraan ji alxuraan sa jiitu fa tabaarakallah am na yàlla def barke ci ñoom ñii ak njaboot gi ñëpp ba mën leen a gën a xiir ci boppam gën leen a xiir ci diine lislaam gën leen a xiir ci Sëriñ Tuubaa sax gën leen a sàmm. gën leen a wéral yàggal leen lool. ñu am fan gudd gudd gudd gudd. wànq gi wér wànq kattan. buñ mën a sax dàkk ci liggéey la liggéey alquran ci liggéey ci alquran. liggéeyal ci sëriñ bi. ndax sëriñ bi fa mu teg alquran kenn teg ko fa. waaw fa mu fa mu kenn xam ko kenn àggale ko. kon nag alhamdulilah rabbil noo ngi sant santaat suñu borom. nu booleeg sëriñ bi. di gën a sant sëriñ bi. ci ci ci ci ci ci moo nga xam ne mooy suñu lépp tey ci nag ci ndam yu yees yi peq. nu am. waaw tey lépp paggute fa lépp paggute mu juba boromam la. kon loolu ndam la yu tàmbali rek la waaye incha allah kanam rek la jëm kon noo ngi sant. waajur yi seen i waajur noo ngi sant yi leen doon taxaw di leen jàngal noo leen sant ñoom ñii itam ndax li diggante bii ñu am li ñu am lu ne xaj na lu ñu xajoon na ci saxal bu ne xajoon na ci waaw kon kon kon loolu li suñu boom toog toog leen suñu boom defal la waaye nag am nañ ci cër yàlla jox na leen ci cër waaw ndax ndax ndax nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu jóge woon eh, jubalu ko ni taxaw ko ni suñu bopp def ci seen bopp def yitte ju tol na jigéen ji ñu tef ba am ci ndam lii ñu am loolu am nañ ci yàlla may jox nañ leen ci cër kon man moom kon man dañoo bu baax a baax sant leen sëriñ Tuubaa bu baax a baax sant seen i waajur sant ñi leen doon jàngal sant leen gërëm leen ñoom ci seen bopp noo ngi sant sëñ Ahmadou Bass itam ci euh, euh, tënk gii mu tënk ndam lu rëy lii nu am euh, di ñaan itam nañ nañ nañ ko jotlikaay yi. yëglikaay yi. yeetekaay yi. ñu ubbil ko bunt. te may may may ko ci. may may ko ci ndigal. Ah, ba mën a ba mën a ba ba xës dëgg yi. ñëpp mën ko gën a dégg. gën a xam fu mu jëm gën a xam lu mu doon. Ah, ah. gën gën ndax ñëpp gën a mën a sant. waaw ci ci ci ci ndam li rëy di ñu mm. ndam li ndam li tubaarkalla seen tubaay itam. Mm. moom alhamdulilah rabbil aalamiina tawfiixi Sénégal la ndax réew yi bari na lool te fii la feeñ kon nag Sénégal gépp ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bokk ndam li waaw te it ñoom ñoo war a sant sant sëñ bu baax seen seen Ahmad Bamba mi mu leen yi bari na lool waaye fii la fii la fii la waaw ba xam ne seen seen Ahmad Bamba li li ma ci xam ak li ci gëm mën ma ko wax yëwu xam ak li ma ci gëm mënu ma du ma du ma ko wax sama làmmiñ sëñ ma ko waaw